réew mi moom dana dox bu ci yàlla àndee waaw kenn nag kenn kenn kenn bu mu yaakaar ne mën na taxaw ak i pexe walla ak caay-caay buy tax di nga indi fitna ak di tiital waa réew mi ba tax ne ni réew mi war a jaar du fa jaar

quand même euh, dex bu yaatu la muy Songorongo mu indi woon gàllankoor bu mag a mag pour euh, waa Sédhiou waa Marsassoum te boo bëggoon jógee Ziguinchor ñëw fii amuloon yoon donc nit ñi dañ doon jaar li ñuy wax national la euh, la RN 6 jógee Ziguinchor donc jaar Adéane dem ba ba boo demee Goudomp génne ji Tanaf Tanaf Kolda jóge Kolda doog a ñëw Sédhiou donc boucle bu rëy boobu lañ doon def parce que yoon amuloon pom pont bi ak yoonu budget bi dafay tax léegi boo jógee Sédhiou su la neexee da ngay jaar si yoon bi rek pont bi booy génn fii Bignona ngay dem Bignona Ziguinchor donc dafay ubbi ensuite dafay relier Sédhiou ak ak Kolda euh, waaye bi bi des nag mooy diggante Sédhiou ak Goudomp ndax Goudomp département région bi la waaye yoon amul donc da ngay defaat bokkul boobu ma la wax moo tax ñu ne il faut ñu taxawal pont bu bees mooy pomme temento pour que gu Goudomp si boppam ak ñi nga xam ne mooy waa euh, Balantacounda gox yi nekk foofu si Mandibarassou euh, ak commune yu mel noonu mën a am accès direct ak Sédhiou loolu nag ay comme yu bëri la mais dafa am solo parce que pomme yi dafay ubbi dëkk yi dafay yokk koom-koom day tax dem bi ak dëkk bi yomb day tax aussi koom-koom bi surtout lépp liy meññeent dañu koy am fii lu bare bare ñu mën koo euh, valoriser cest à mu nekk ngëneel ci population yi loolu mooy li nga xam ne euh, lu am solo la ma tuddee pont bi nag Famara Ibrahima Sagna di doomu Casamance euh, di doomu Sédhiou tam ci ay maamam ak lépp ak pom bi nga xam ne mooy Temento bi ñu fas yéene song lu dul yàgg ñu tuddee ko aussi Bala Moussa Daffé muy ñaari kilifa yoo xam ne ci vraiment région bi ak ci Casamance nekk nañu ay model ci liggéey ak ci fonk seen réew bëgg seen réew donc am naa mbégte lool ci lool maa ngi félicité nag euh, présidente conseil départemental soxna Annette Seck di doomu euh, docteur doomu professeur Assane Seck Assane Seck xam ngeen ne moom laa tuddee université bu Ziguinchor moom itam doon kenn si ñoom euh, doomu Sénégal liggéey ak Senghor ba bi ko yàlla di moom Annette Seck di membre du gouvernement yor sénégalais de l'extérieur euh, mais aussi nek jigéen bu jité conseil départemental bu bu Sédhiou loolu aussi nek leadership féminin may gërëm les maires yi nga xamné ak élus yi ak hommes politiques, yi ak population yi ko fal ci élection yi muju di gërëm le maire de Marsassoum Seyni Mandiang ak euh, mbolé maire yi nek ci gox bi euh, pour wax rek né bëgg naa ci sen taxaway gis mobilisation contre naa ci population yi Merci beaucoup, Monsieur le Président. Voilà donc Aram Daou, c'était là le président euh, de la République euh, Macky Sall qui venait euh, d'intervenir à l'issue de l'inauguration du pont de Marsassoum. C'est tout un symbole, c'est un vieux rêve qui se réalise ici dans la région naturelle de la Casamance. C'est une entrée de plein pied dans l'ère de l'émergence pour la localité de Marsassoum. On se retrouve tout à l'heure à la cérémonie. en tout cas,

wali dañuy wax toujours ni Sénégal violence gi daf fi bëri fi mel ni Sénégal yépp violence violence baa ngi ci mbedd yi mi ngi ci politique bi mi ngi ci terrain football yi mi ngi ci lamb gi événement religieux sax léegi violence la ciy am Lool nak ñun ñëpp la interpellé interpellé na citoyen lambda bi interpellé na parents yi nañu yar xalé yi te téye leen interpeller interpellé na état bi également waaye ñi mu gën a interpellé tey ci ci sama gis-gis mooy ndaw ñi jeunes yi dañoo war a xam ni askan wi xaarewul lii ci ñoom jeune bu yaakaar ni toll nga foo mënee ak foo amee doole demal bay demal gori demal def loo xam ne mën ngaa jàppale say njaboot say say waajur parce que sonn nañ ci yow demal def loo xam ne mën naa jëriñ sa askan moo gën nga ay nit di la utilise ay politiciens su dee violence politique yoo xam ne seen i doom ña nga Canada ña nga États-Unis ña nga feneen wala suñ ñi su dee ñibbisi nañ ñu ngi ci ay grande société di liggéey di leen puus ñoom ñuy dem di reyante loolu dafa jot nit ñi xippi seen bët interpellé na état bi tamit parce que lu toll ni match de football boo xam ne final la ñëpp xam ne ñaari ñaari équipe yooyu dafa amoon rivalité seen diggante donc ci tënk daal réew mi Sénégal toujours ñun li ñuy wax suñu matière première bi ëpp solo mooy jàmm li xew ci réew yu bëri ci Afrique ak ci àdduna bu xewoon Sénégal tey Sénégal jeex na parce que ñun suñu koom-koom dëgërul euh, ak yu demee noonu jàmm jooj ñu am nag na ko ñëpp sàmm liggéeyu kenn ku ne ci ñun la waaye liggéeyu mbooloom yëpp la waaye bis bu ñu caaxanee ba taal réew mi dinañ xam ni njaax mu am na parce que Sénégal ay xaju fi xiyoo ngaayu xaju fi guerre xaju fi loolu daal mooy message bi ñuy lancé te nag ñëpp jël ci seen matuwaay parce que ci arène politique bi ñu ne bis bu ne nga dégg euh, violence à Dakar particulièrement Sénégal nuyu naa leen man la Cheikh Thiam ambassadeur sama vidéo bi maa ngi ko jagleel Barthélemy Diaz doomu Jean Paul Diaz Barthélémy dama déggagul sa réaction wala réaction kenn ku bok ci mairie de Dakar par rapport ak sortie bi Abbas Fall def Abbas Fall bu pastif limu wax nga xamni ni Sénégal yëpp waroon nañ ko prêter waroon nañ ci prêter attention et càmbar ko comme ken defuko motax man ma bëgg ko def bëgg la ko baxé pour nga jël say matway Abbas Fall bul faté ni li nga yore mom la bëggoon yalla jox la ko neexu ko moo tax li nga tàmbali moom la bëgg a yàq ni mu ko bëgg a yàqee nag dafa leer ci ay kàddoom mu ne ci procès bii ñu jëm la 16 moom mu ngi woowaa Ndakaaru la 14 ñu commencé ko ci biir kër yi commencé ko ci biir gox yi ci biir karce yi ba ci dëkk bi loolu mooy day woote ci mbojum Ndakaaru maanaam yàqum Ndakaaru ñu ngi woo nit ñi ci yàqum Ndakaaru Ndakaaru nag léegi nekkatul ci loxo yi Macky Sall ci say loxo la nekk parce que yaay mairie wu Dakar bi ngeen ci démé mom bayam bi ko bi tax muy woté lolu bayam Ousmane Sonko yeen lañ ndo maire mom batay kenn gisagul lu mu def té yow yaangi def ñëpp di gis muy ndakaaru ñu bëgg la ko yàqal te sa carrière politique sa présidentialité ci ci sa maire bi la wara tambalé motax gis nañu yaangi def preuve ñu bëgg la ko yàqal léegi lan mo ci sa responsabilité mais suma ma tout ci histoire dama nan la motax ñi won nit ñi ci mbojum manam Senghor mo ñëk jot réew mi té yow ci école de école du parti euh, PS nga dit, di ta di di tout Senghor di dom ci Abdou Diouf mok sa papa ñora and ñom construire réew mi sa jëwrin di Khalifa Sall ngeen nek ay hommes d'état des vrais hommes d'état même soo lundi opposé où vous le faites pacifiquement et dans la plus grande personnalité vous êtes des hommes d'état parce que c'est vous qui avez construit le Sénégal le PS nan ngeen di encourager di sétane ay nit ñoo xamni ne barki démb lañ juddu ñom bëgg yaq réew mi bëgg yaq seen dakaru njaay gi nga xamni ne ko tabax bu dé ci affaire liñ ko bëgg wék muy affaireu japp bu dé sasso sorcière bu Macky Sall ak son net manque d'état droit ak ragal gumu ragal opposant di len écraser ci yeen lako tambalé Khalifa Sall lañ fi njëkk japp juger ko tejj ko mais wowul nit ñi ci yàqu dakaru yow ci sa bop ñu japp la juger la nar la éliminer ci yu bari bi Abdoulaye Wade defee ñu tëj la woté wo ci yàqu ndakaaru Karim wad biñ ko jappé mo gënoon a jekk ci woté pour nit ñi génn tal Sénégal mais Karim wad defu ko pourquoi defu ko c'est pas parce que ñi xamulen ko wala nit ñi ñu len dédé c'est parce que vous êtes des hommes d'état yéna a kon di nuy wa Sénégal man la Raphaël François Mendy ñu xamé ma ci bobé au niveau de Guédiawaye waaw tay ñun jeunesse Guédiawaye bi ñëpp ñoo génn ñëw am luñu bëgg ci dëkk bi lu fi xewon gis nañ ko 8 mars be passé amoon na fi bëgguñu mu amaat fi mooy que jeunesse boo xam ne dañ leen manipuler ñu nekk ci biir dëkk bi ñu leen di xeexloo di leen di xulool di leen di sànloo ay xeer 14 morts ba 14 morts am ci déggoo ci ñoo xam ne maanaam ay responsable lañ déggoo ci kenn sa doom dee na ci ay baadoolo ñoo ci dee ñu ci mel ni ñun ñu si mel ni ñu nekk suñu ginnaaw nak ñun jeunesse bi dañoo yeewu kenn duñu xexlo kenn duñu saagaloo kenn duñu sànniloo xer ku bëgg xex wala sànni xer wala saga da kay té ñun nag waa Guédiawaye dañoo jëss ñu mesure jëss ñu responsabilité ñu sécurité fay ñu nit ñu ay nervi ñun population Guédiawaye ñun ñun population Guédiawaye ñun population Guédiawaye lu ëpp tour ñun jeunesse ñoo gën ku fi gis nga fay ay nit pour muy taal puno wala muy euh, sàcc dugg ci ay magasin jàmbur wala muy jël alal jàmbur doo toog oto Fatick doo toog oto Fatick laa la wax parce que il est temps il est ñun xam nañ kii liggéey dëkk bi kemul ñoo nax fii ñëpp ku nekk xam ne kuy liggéey ku nekk xam na kuy tricher ñun xam ne kii liggéey fii ci biir dëkk bi ñun nag ku nekk am nga foo féetee bañ ñu ku nekk far fu ko neex ku la neex nga àndal parce que demi pays démocratie lañ nekk mais

billaay wala doon wax defati gars yëpp ñu ngi ni kel fayu len dañu engagé trop c'est trop lacrymogène la ñuy tiré fi jëmi jàpp ay xalé innocent taalibe yi amuñ fu ñuy fanaan bu ñu dooree lacrymogène ñoom la mais pourquoi pas gars yi dem leen liggéey dem leen liggéey té ngeen bay ay ciow bay xex ku woote xeex dem leen ba mu dugaalem taal fopp mais fi géej way woote ñu xex

muy bépp jeune géejawaay rawatina gis nga comme li ñuy tax man soo gisee ma génn nii di wax mooy mbëriñ si bëgg di yàq seen der dama leen a bëgg a xam ne mbëru géejawaay amul kenn ku ci taxaw ñu lay jël nerf yi naan la xeexal wala nii wala nangam ak ñun xeexuñu xeexloo waanuñu ñun xam lan lañ tal ku jàppale jeune géejawaay comme ni si Lat Diop di def président di jàppale mbëri di leen ñaax si loo xam ne nii tey jii pour loo xam ne lu baax la mais kaay xeex tey jii ci dugg ci ay wàllum xeex kaay xeex ba bañ rey la si say mbokk ay suñ la si gaañee wala suñ la si tëjee say mbokk ñooy sonn mais ñun ñu kenn ñu kenn ñun suñu géejawaay gi jàmm lañ fi bëgg ku fi nag new ñëw naan da ngay jéem. salaamaaleykum euh, Sénégal yi maa leen di ziar euh, di wax euh, xew-xew bi nga xamante ne moo dugg diggante Ousmane Sonko ak Mame Mbaye Niang beneen bi mooy ñi nga xamante ne dañuy naan dañoo war a jubóole Macky Sall ak Ousmane Sonko.

Sénégalais yépp question bi ñu war a posé wu li ñu war a demander Ousmane Sonko lenn la mooy usman Sonko dafa ne màmbay Mbaye dafa jël suñu vingt neuf milliards Mame Mbaye ne ko boo ci amee firnde na ko indi te boo indee firnde ni man damaa sàcc alalu Sénégal dinaa taxaw jébbal sama bopp yoon démissionné sama poste ministre dem kaso waa léegi loolu ki nga xam ne moo accusé muy Ousmane Sonko mu accusé Mame Mbaye Mame Mbaye yombalal ko ko ne ko dama la yóbbu ci yoon nga indi preuve yi jox ko Sénégalais yi waa léegi loolu lu si jar ne woo ay xale yu ndaw nee leen ñëw leen xeexal ma ci loo xamante ne yow intérêt personnel yaa accusé doomu aadama beneen bi mooy diggante moom Adji Sarr def naa defuma demal ci yoon seetal sa bopp c'est très simple léegi lu tax sa problème personne sa problème personne yow ngay bëgg say jël ay doomu jàmbur yoo xamante ne xamuñu li xew nga bëgg leen yóbbu ci mbedd ñu faat leen wala ñu rey leen wala ñu reyante seen biir loolu nag fulla ak fayda bi mooy ndaw yi seen xel yi ngeen def ci ndox xam ne problème boo koy xeex ci mbedd na fekk ñu ne courant dafa coupé dund bi dafa cher wala nangam ak nangam yu xeet yoo xam dafa concerné citoyen bi mais loo xamante ni nit la concerne nit bu accuser nit nit ne ko li nga accuser indi ndax dafa vingt milliards na ngeen dem xexal ko ci mbedd mi bakkan des du ngeen gis du ngeen gis du ngeen gis kenn ci euh, euh, deretam question bu ngeen wara poser waji ne na am ful aussi mu indi ay preuve ci la. di nuyu suñu mbokk ak suñu ñun suñu premier point bi ñu ñëw ci Ousmane Sonko direct lañ koy lañ koy lancé Ousmane Sonko dafa taxaw mu ne Mame Mbaye Niang ñun sénégalais dafa sàcc suñuy vingt quatre milliards. te ñun ay sénégalais lañ ay jeunes lañ ay ndaw lañ loolu nag dénoncé boobu mu dénoncé Mame Mbaye ñaa ñu ngi ko ci sant di ko gërëm li ñu soxla li ñu koy li ñuy xaar ci Ousmane Sonko ñun mooy ñun mu indil ñu mu indil ñu preuve boo xamante ne Mame Mbaye Niang moo jël suñu xaalis ndax Mame Mbaye Niang génn suñu xaalis ñun loolu soxla ko ñun jeunesse bi mais moom xaaruñu ko ci muy woo jeunesse bi si dee problème personnel yoonu sénégalais yi nekkuñu si nañ leen waxante dëgg Ousmane Sonko munoo taal réew mi tey mun taal réew mi ëllëg ñun nag ñun nag géejawaay ñun ñoo ko moom géejawaay képp ku ko bëgg a taal di nga jël suñu bakkan barki Seydina Mohamed beneen point bi may ñëw maa ngi ñëw ci ay doomi géejawaay ñun géejawaay lañ juddoo fi lañ yaroo fi lañ màggee luy nayu may ma tuuti may yàggala wax li ma bëgg ñun doomu géejawaay kenn dootuñu ñu sàkkatoo kenn dootu ñu xeexloo ànd sa gox la ñu wax sa tax sa bopp taxaw fu wóor man ak samay supporter a ngi nii ci mention spéciale Alal Diop lañ wax dëkk ci dëkk bi boole koog defar dëkk bi lañ wax ñu dëkk nag du ñu seetaan kenn du ko taal umay àggaleel. parce que tey jii man tey jii nii bi ci des ñun doomi géejawaay ñun ñoo ma tax a jóg pour ma wax loolu luy ndeyu doomi géejawaay di yàq alalu waay lan mooy ndeyu loolu koo xamante ne koo xamante ne yaa nga dëkk sax ajak jek di di jaxase doomu géejawaay ñuy yàq yëfi doomu géejawaay ñun duñ ko nangu tey duñ ko nangu ëllëg suñu woon mooy ci IBES bii idi jaaw géejawaay yëpp bi seen bibliothèque baa ngi fii ñu xëy xëy bëgg leen fee génne bibliothèque bi dossiers yi war a tegu ci kaw tali bi ñii réew mi ñoru leen chaque jour loolu laa leen di wax bu leen réew mi ñoroon dañuy xool li jeunesse bi bëgg ñu def ko mais Ousmane ko problème personnel lay xeex kaa leen dee ma falu ñun deewuñu ah, sëñ bi ñun mooruñu sëñ bi te géejewaay kon nar a yàq di nga jaar suñuy bakkan wasalaam foog ngeen ni ñun dinañ dem toog ay juge ñu tànn naan dañuy juger ñun. Omar Maham Diallo su ne man criminel laa fenn. est-ce que pare ngeen. dinañ jël bakkanam wala mu jël suñu bakkan rek. man Ousmane Sonko maa ko wax gàtt sa gàtt sa rek. gàtt sa gàtt sa rek léegi. gàtt sa gàtt sa. gàtt sa gàtt sa rek. ki leen di garantir ni mun la sécurité kon nous sommes derrière chaque maison de magistrat derrière chaque famille de magistrat nous fa teg une armée Macky Sall laay waxal daañu xeex ak moom bu dee gendarmerie ak police rek la yaakaar na préparé xam ni dina rey Sénégal yépp waaye Nous sommes ak moom kër gi dugg nañ ci kër gi yaa illah sa waay Sonko ay bal la ñuy dóor taxaw taxaw taxaw Sonko ngi ci garage bi garage bi lañ ne ñu ngi ci garage bi eh, eh, eh. ngi ci garage ngi ci garage bi gars ngi ci garage bi mi ngi ci garage bi nda bi Nini sarza garaj mi? Nini sarza garaj mi? Kara bana bir. ci garage a ñu ngi ci garage bële garage bële lañ dugg caras boobu oto bi ñëw ñu taxaw Abbas ñëw na Abbas Salim Abbas Salim Abbas Hey hey hey Hey Hey Abbas Sonko en danger mi ngi si garage bu la amul footu oto bu ñuul oto bu weex bee si ginnaaw am na garage ñu ngi leen di talal loxo ñu ngi leen di talal loxo ay Sonko Barthélémy Dias Sonko en danger

Pogoun mwen fye, pogoun mwen fye, pogoun mwen fye. Kode lè, kode lè. Dè so, fèd mwen fè kou. Fèd lè, fèd lè, fèd lè. Dè so, fèd mwen fye. Dè so, anè tè adè lè satè. je dis man je ma wax politiciens par exemple violence politique bi am je ma que je n'ai rien à dire aux politiciens. crise sociétale. parce que ku ñàkk fulla ci sa bopp surtout am ndaw nga que société bi soxla na mais pas ci xeex

mais jeunes yi leen di topp au ko de quoi et di génne ay jaasi di tëb di dal ci loo xam ne politique du loolu politique débat d'idée la ku nekk na ñëw ak programme ku nekk na ñëw ne askan wi lii mooy sama mbëbët ci askan wi ku nekk toog déglu parce que yàlla may na ñépp xel seet li la gënal bésu vote nga dem vote dem ñibbi. loolu lan la ci ay xeex ak kii. salaamaaleykum. man Ousmane Nous ne sommes plus au temps des révoltes de salon. Comme je l'ai dit, notre moment de vérité est arrivé, celui des véritables gladiateurs. Le plan est déjà dessiné yéen di seen bakkan yow Macky Sall ak ñi leen wër. c'est le prix qu'il faut payer aujourd'hui pour protéger notre projet. moom incha allahu rabbi dinañu jël seen bakkan yéen bu soobee yàlla kii di Antoine Diome kii di Macky Sall kii di procureur kii di Yaxa Mbaye defkatu ñaawtee fii lim juum buguma lim ñëpp après ngeen jël ay policier mu leen di wër wala ay gendarme déedéet soyez mobilisés le combat s'annonce mortel le mot n'est pas de trop. nous on est prêts pour vous Nous ne pare pas pour rien c'est le prix qu'il faut payer aujourd'hui pour protéger notre projet. Allumez la maison de soow l'heure n'est pas au conciliabule elle n'est pas aux discussions numériques elle n'est pas aux discussions de salon l'heure est au combat. Euh, Je yi nga pas ne nag yéen ngi di manifester Continuez leen combat continuez le guerre, continuez continuer résistance.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 Les médecins spécialistes orthopédistes ak généralistes nous suivre te nous ba que dinañ nous ce wax tribunal muy ay yu dem ci walu lépp ñuy wax musculaire muy ay xeetu arthrose ay sacralisation euh, euh, euh, lombaire vertèbre L5 ak yeneen ak yeneen yu mel noonu yoo xam ne lottal na ma lool sonal na ma lool. maa ngi ak wér gu yaram gu mat sëkk canceru ah ci lu ma yëgul jabetu ma aw ma insuffisance aw ma benn xeetu jàngoro maa ngi nii alhamdulilah. yàlla daf ma nattu ba may nekk gone ba fii ma toll nii.

famille Ousmane Sonko toutes réunies ñom ñu ngi ni di dund bi ak doom mi euh, ci vitre euh, vi euh, vitre plutôt ñom tamit ñu ngi loolu dafa am sama ben élève bu nekkon Beauté ñukay wax Fatou Casamance le dama ko bolé won ak Sonko mu man ifan nga xamé fan nga xamé est ce que jaawle woo ko ko fi nekkoon niroo nañ de mais du mom de est ce que jaawle woo ko kii bu fi commencé gul de est ce jaawle ko ngum tudon ngum tudon la joxon ki nak aji la tuddu aji aji la tuddu de est ce que jaawle woo ma xale jigéen ñi dañoo niroo de Man, na am mais man de wax dëgg fa yalla man ya xana ki ma ci la de. ni tenwa bu rafet la dafa njool am forme nak da dafa set da set wecc wacce guñ sa tay sante bi ñoom neen dañu guddé wacc dañu liggé ba ci kanam man xaram wala boole la mu fekké defo dara nga jaar fa boo fa jaar nga am dara dé xalé bu set la bu ya mu ya commencé ya ci man yaagul bu mu commencé ci man yaagul dé man nak léeg damay faté parce que ñi may yor ci fi tim day bari té léeg fi dañuy ñëw arrêté commencé waat ma faté ko man na nek amna na keneen ku fi nek de mais kook mom xam dafa xawa ñaaw xam na do ko soxla amna na keneen ku fi nek mais kook dafa xawa ñaaw nekk feebar def am doom ju prématuré dem mhm. ca hôpital ba mhm. loolu du lool lool loolu lu yàlla dogal nii rek de mhm. ñoom ñoo indi aji saar fexe ba day xadi génn génn salon bi parce que bu fa sonko ñëwoon fekk fa responsable salon bi la fa am du am du fa am ñoo dugal aji saar ba noppi jële fa nday xadi bi fa nday xadi jóge demal nga laaj nday xadi ñaata massage la fa bàyyi Mm-hmm. mais comme Sonko moom warul Adji Sarr warul Kumba warul Binet warul keneen moom day maase wu bu ñëwee man naa am. Mm-hmm. maaseur yi. Mm-hmm. ki bëgg mu maase ko pour mu comploter moom du ko maase. ñu fay leen ku ne trois ay pour de. dëgg laa la wax. ñu ne ko est-ce pour massage Ousmane Sonko yow yaa désigné Adji Sarr pour mu koy defal mu ne déedéet musuma wax ne Adji Sarr. yow yaay toppatoo Sonko. aji Sarr man maa ko boole ak Sonko pour mu koy maase. comprendre nga. ko jàkkaarlool mooy néeg bi la fameuse néeg mooy néeg bi nga xam ne fa la ñu wax ni euh, mooy le lieu présumé fa la yëf yi xewee salon bi comme ni ngeen di gisee balaa nga dugg ci néeg bi benn caméra de surveillance encore mu ngi tim pour wone ki nga xam ne mooy dugg mais comme ni ma leen ko waxee toujours keroog ci le 2 euh, février 2021 caméra bi branché wuñu ko woon li waral moy gannaaw coupure de courant la won débranché a nañu machine yi faté ko branché wat loolu mo taxone kérok branché wuñu caméra bobu té te kérok bi yëf di xew soxna si nga xamné ne mom salon bi muy khadi euh Ndiaye mom bobo ci kër gi na hôpital dem séti li nga xamné ne domam bu prématuré boobu euh, jëkkëram rek mom mo nek ci kër gi. bu ko défé dañuy dans la fameuse salle salle bi nga xamné fa Ousmane Sonko mais fa lañu doon ma comme ni ngeen ko gisee ni ñu leen ko doon waxee bu ñu génnee ci biir euh, néeg bi li nga xam ne mooy bunt bi bu ñu ko delloo comme gis ngeen ko bunt bi du tëju donc euh, xaw ma par ban extraordinaire la la ñu mën a dugg ci néeg bi euh, tëj ko ba mën a fa mën a def loolu nga xam ne moom la ñuy tudd mais comme ni ma leen ko waxee kër gi dafa am benn xale bu ndaw xale boo xam ne ñetti at la am te fu ne lay daw donc bu bunt bi waroon a tijjeeku ñu war fi mën a def dara xale boobu war na mën a daw à tout instant bu ko xalaatee war na mën a jiixi jaaxa si xel yi mais beneen encore événement bu bu bu doy waar comme ni ma leen ko wane diggante fii ma taxaw ak buntu entrée principalu kër gi matul 5 mètres boole ci matul 2 mètres pour ñu entrée wu salon waaye yow viol moom kan lañ koy def viol Adji Raby Sarr Adji Raby Sarr moomu am jëkkër ba tas ne musuma def rapport sexuel ci li maa ngi leen di gërëm di leen sant. yàlla du weer kenn. yàlla du weer kenn. ku weeru rek. ku weeru rek. yaa weer sa weer sa moo tax bu ñu bëggee bañ bañ weeru. moo tax bu ñu bañee weeru. bu ñu weer kenn. bu ñu weer kenn. bu ñu xas kenn. bu ñu xas kenn. nañu wut li ñu bëgg nag. nañu wut li ñu bëgg rek. bu ci bu kenn dox suñu digganteeg lool bu kenn dox suñu digganteeg suñu objectif. waaw waaw waaye nag. waaye nag ñu def ko ci sutura. ñu def ko ci sutura. ormaalante ormaalante. islam eh, ak lu tax mu dem fa nga laaj. Eh, ndax dafa ne dafa feebar eh, mu wane ab kayitu ordonnance ni dañ ko digal kinésithérapie charia lum ci wax mooy eh, dafa xaram ci bépp fànn ndax ku ku dëkk ci réew mi am culture tuuti xam nga ni salon de massage boobu du salon de massage kinésithérapie waaye ay caay-caay kese moo fa nekk ay xale yu jigéen yu dem ubbi seen salon amuñu benn diplôme kinési Euh, seen publicité yi nga xam ne ñu bëri man ci taalibe yi ak euh, parce que ñun ay nitu diine lañu dañuy gëstu tamit ndax duñu ñu tëb rek wax euh, lu ñuy publicité seen salon mooy ñëwal summeeku ba set ñu toppatoo la ba ba nga am mbégte wax yu ñaaw yooyu xal képp ku ko publicité ci dëkku diine dëkku charia dañ la war a jàppe ci bés boobu tëj la kaso duma la juróom-ñaar fukki yar yu métti yar la yar yu métti loolu mooy atté ci charia ki fa dem ak ki koy def yépp la ñu war a jàpp duma leen duma yu metti bu dee dafa ne am na ustaas bu ko ko digal yaakaar naa ustaas boobu bu dee dafay ànd ak moom ustaas bi war na di wax dégg ustaas ba juum na ba ci kanamu yàlla ndax xaw ma ban école la jàngee ci ban idéologie la ko teg waaye teguwut ci mazahibul arba su ñu waxee mazahibul arba mooy ñeenti école yu lislaam sukkandiku lu dut ñeenti école yooyu koo fi tudd ci école rek l'islam reconnaître ko sukkandiku diine yépp Afrique Asie Amérique ci continent yépp weesu ñeenti école yu mag yooyu mooy imam Malik imam Hanbal imam Shafii ak imam Hanafi ridwanullahi alayhim ajmain te lii buñ ko waxee dafa nekk loo xam ne ala ittifaqul ulama wal jamhur bépp borom xam-xam bu mus a ci kaw suuf ci diine accepté nga ñeent ñi gannaaw biñ feeñee ni kenn waratul sukkandiku dudut ci ñeenti école yi moom la alamu islami bi yépp nangu keneen ku fi ñëw nag bees la te defagu fi ñaar ñeenti téeméeri at te yooyu kenn du ci sukkandiku imaam boobu ko digal loolu imam bi juumloo na ko ba ci kanamu yàlla bu dee imam bi ci moom la sukkandiku te moom it culture générale am ci suñu gis-gis yaakaaroon naa ni waru ko may muy juum juumte gu rëy googu. wax dafa am ñeenti tànk yow mi wax yal na fekk yaa war a wax la ngay wax it yal na fekk muy la nga war a wax. fa koy waxee yàlla nay palaasam ña ngi koy waxal yàlla nañuy borom wax ja lu ci manqué noppi te jullit du fena jullit dana jikkoo jikko bu nekk moom des fen illa al jullit du fen jullit du war moo tax yàlla nañu yàlla jàppale euh, waaw